maanaam fu mu teg tànkam daf lay jëf mu wóor ni tey jii képp ku mës a jaar fii jëf fi gis nga njëriñ képp koo xam ne mës ngaa jaar fii rek jëf ci bërëb bi gis nga njëriñ fii moom li ñaan c'est sunu sol fertile li alxaan di wax alaaj wax nga balal tey bi yoo ko gën a bis ni rab bii mm-hmm. du càgg ni tool fu nekk da ngay

dama koy wax sa su nek fiñ toll ci at jamono moom la serigne ci soxla mom la nitu yalla yi soxla mom la buur yi soxla mom la taalibe yi soxla te mu mën a mañu lépp bañ na ba amul compte amul ay tool amul len tool yi mu am man mi ma jëwriñ jë tey ji lañ ko don bay li tax dem moo ci mu mujj ni ma kon ñu bàyyil ma dem dem na ba ñëw mi ngi si nekk mi ngi sonn di dallu nii dégg nga kon loolee nekkaat cër boo xam ni cër gënu ko gu màgg te lam fay bay yëpp askan du ci génn da koy def addiya ki fi nekk xalifa général des ki fi nekk xalifa général des mourides yàgg na boobaak léegi ëpp na ñaar fukki li ci tege dafa yemale kii indi ak kii laaj si nee na kii indi day laaj si yalak ko fi yabal ki laaj ci yàlla ko fi yabal kon ñaan ñoo ñoyam ci man dencu may dama koy teg lu fooy fek muy sa pour wax ni la sëñ Yoro ni di ngeen dem ba dem marché jot nit ñëw soxla ni uma bàyyiwuma de rekeur ñu wañi ko dem marché ni ko indi kay toñu xaar yalla jox ko ko wa yalla jox tey doxe noonu jégg na dayo kon fi ngeen teg seen tànk ak fi ngeen jublu foofa la yàlla na yàgg ci gis suñu bopp mukk muy tàmbale ci man ak yéen loo def defal ngir yàlla effacé woon ko ginnaaw payug yàlla moo gën payug doomu aadama te yàlla sooy fayee nga xam ko nga yëg ko te dina toftal

li ko teg effort bi ngeen déployé fu nekk docteur jóge fa ngeen ñëw loolu lépp nekk na loolu suñ gis na ko baax dañu ki sant la ca teg dafa am loo xam ne sëriñ bi léegi askor la ku ko ni nii mën la nii te comme ni nii nga ni nii naa la wax loolu ko loolu góor ñuy jigéen ñuy mag ñuy ndaw fii bari na ko falu ci réew mi ba ñu koy yéem fii la jaar dina jaar xaw ma ku fi nangul liggéey waaye nag daal xamale liggéey fi mu jafe na ndax fii dañoo yemale dërëm ak milliard dañoo yemale dërëm ak milliard li nga xam ne moom moom la jiital lépp na muy ak àq muy dëgg ndax boo xam ne boo boo fa ne cap sans borom egsi du mën a yomb mu ngi